mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñu nii seetaan tey noo ngi dalal kilifa gu mag di yàlla may si wàllug ñaan ak faj ñëpp xam ko ci la faj ak ñaan ñu koy wax ci ñu koy wax sëriñ Mouhamadul Fadilou Mbaye Asrar di doomi sëriñ Fallou bay Kurus ñu fas yéene seq ak moom waxtaan wu yaatu jëm ci wàllug euh, faj euh, sëñ Fallou Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. bismillahi xamdan liman qad alama al asrara bi fadlihi ibadahu al abrara alxaaliqu al arsh ma al kursi summa salaatu wassalaam ala sayyidi al awwalin wal axirin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi lay euh, delloo nuyoo di la ziyaara ak mbokk yi nga xam ne ñoom nga mboolem ñi nga xam ne ñi ngi seetaan gannaaw bi nga nuyoo ñoo ngi lay laaj lan moo dox diggante xaar ak euh, seet listixaar ak seet ba xam benn la wala du benn ndax damay dégg sëriñ yu bari ñu naan listixaar ak seet léegi ma bëggoon nga defal ñu ak ràññeel listixaar ak seet. waaw listixaar ak seet ñoom ñaar ñi seeni tur wuutee noonu la seeni mbir wuutee ak seeni doxin nuru nañ nuru nañ benn mais duñu benn mm-hmm. seeni tur ni ñu wuutee mm-hmm. noonu dañu wuutee ñoom ñaar mooy listixaar ak seet. Mm-hmm. bu dee istixaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko jàngal ana nan lañ koy defee yoonu leer woo xam ne julli bu nekk mën na koo defal boppam wëlis mu koy def lu keneen te loolu yonent bi sax ko jàngal ca di da ngay jàpp ba sedd ci waxtu woo xam ne waxtu wu dagana naafila la nga julli ñaari rakkan soo noppee nga def istighfar muy astaghfirullahu alazim comme li nga man soo noppee nga jàng salaatu ala nabi kadalik mm-hmm. euh, li nga man soo noppee nga jàng ñaan ga nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe na ko mu di allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ba ñaan gi jeex soo noppee nga ñaan la ngay ñaan wala boog nga laaj la ngay laaj daal di tëdd bu fekkee mbir la moo xam ne mooy sàkku dugg la suñ borom dana ci def ak tawfiq ak jàpp ne incha allahu taala bu fekkee nekk na mbir moo xam ne soobu nga ci gis ne jàpp yombul jàppandiwut xamal ne mbir mooma gënul ci yow suñ borom moo ko def ca ginnaaw nga xam ne def nga saxaar ba pare bu dee li nga xam ne nag moo di seet mm-hmm. mbir la moo xam ne kenn du ko mën ci àdduna lu dul na nga koo jàng ndax léppam dafa aju ci xam-xam mm-hmm. moom seet léppam dafa aju ci xam-xam mm-hmm. ca xam-xam yi nga xam ne moom moom moom moo ci méng moom li moom seet faaw nga xam li ñuy wax ilmul xuruuf ak xilmul nujum ñaari xam-xam yi c'est obligatoire nga maîtriser ko soog di ma def li nga xam ne moom la ñu def moom la ñuy wax seet ca ñaari xam-xam yooyu mooy tax nga mën a xam nag nit ki tabiaam moo tax nga mën a xam ilm nuju bidiwam mooy ngi tax nga mën a xam rawxaaniyam bu dee tabi yi doomu aadama moo tax ngay mën a xam mbiru nit ki ci wàllu am amam moo tax nga mën a xam itam ay jafe-jafeem moo tax nga mën a xam itam ci lan ngay euh, moo tax nga mën a xam itam maanaam euh, ay jafe mbir mu nekk fan ngay jaar ba man a faj ay mbiram moo tax nga mën ko xam bu dee ni wax ilmu nujum mooy tax nga mën a xam itam euh, wax ay semaine mhm. moo tax nga mën a xam ay bisam moo tax nga mën a xam ay waxtoom moo tax nga mën a xam itam ay weeram mhm. bu fekkee li nga xam ne moom la ñuy wax ya mhm. moo tax nga mën a xam nit ki ci fan ban taxawaay ngay taxawee ban taxawaay nga mën a taxawee nga ngay mën a taxaw faj ay xaajoom ci ginnaaw ba nga xam ne lees tax seetal nga ko ba pare loolu mooy seet seet gi nag dafa wute am na ñoo xam nañ ko defee ci ndox am ñu koy defee ci kurus am ñoo xam nañ koy defee ci suuf am ñoo xam nañ koy defee ci ci ci ci ay téere am ñoo nañ koy defee ci seetu kenn ku ne xam ak ak fa nga xam ne fa nga jaar ba li saxaar ko waaw sans départ rek ci nit ki nga xam ne bëgg na ko seetal ni ma dikkee mm-hmm. ndax nit ñi bokkuñ ca xaala yi tamit ka daal di ko bokkuñ yow mi nga xam ne yow la ñu seetlu mm-hmm. ca ngay sëriñ bu mat sëriñ xam la nga xam euh, ku ne rek ak kam doon ak fa nga koy seetalee ak waxtu wu ñu lay fekkee yenn saa mu ñu fekk la ci xaale boo xam ne mm-hmm. euh, say faddi say say ngëneelu bopp yi la suñu borom jagleel ci ngay seetee mm-hmm. waaw sëñ Fadal fi muy seetee euh, bari na trop. jërëjëf kon mu mel ne listixaar ak seet bokkul. de listixaar ak seet bokkul loolu mooy li nga xam ne mooy seen farq mu ne wutale. wax nga ne listixaar nit ki na ko defal waaye seet ak sëriñ koy def. waaw listixaar ku nekk mën na koo defal sa bopp ndax yim sansam jàngal na kon mel ko leeralee. Hmm. waaye seet kenn du ko def kenn du ko def ci at lu dul da nga jàngal. loolu leer na euh, damay laaj dégg na euh, dégg naa ñu bari naan cat cat lan mooy cat ak ndax cat dana gàllankoor nit. Hmm. waaw cat day li mu def doomaadama aadama wala boog li mu mën a yàqal doomu aadama gàllankoor mooy li si gën a tuuti ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam mi nga xam ne mooy gën gi mu def jàngal nañu ne nisfu nisfu xuburikum min uyunikum ñi ëpp doole ci seeni way bàmmeel cat moo leen fa tëral wala boo xaaju doomaadama yi cat moo tax ñu faate moo leen rey kon cet lu danger la kon am naa ko amut kon kenn du ko natt ndax loolu dañuy sam sam jàngal moom cet sëriñ su bari dama leen dégg ñuy ñuy wax cat cat mm-hmm. mais des ñoo xam dëgg dëgg sax danger bi nga xam ne cet am na ko xabaas mm-hmm. dafa wax ne mm-hmm. li may wax ne xadis la qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law tasabaxatul xadru wala aynu la sabaxat la sabaxatul aynul xadar mu wax ne yeneen tamit sallallahu alayhi wa dafa wax ne bu fekkoon cat dogalub yàlla bi ak cat mm-hmm. dañuy jë mm-hmm. kon ñu wax ne cat moo jiitu dogalub yàlla bi mm-hmm. imaam muslim fee ko ne fedd feddali ko ci waxe yonent bi sallallahu alayhi wa muhammad wax na ne walaw kaana shay'un walaw kaana shay'un saabiqul qadr ala ayna bu fekk am na lenn loo xam ne dana jiitu dogalub yàlla bi moo di cat yéen sax wax ne lu ëpp doole ci doomu aadama bi ñu faatoo cat moo ne rey Cheikhul Ahmad Bamba wax ne doomu aadama lépp loo xam ne dal na ko ci ay xeetu musiba ki balaa ki fitna cat mooy li nga xam xam ne mu ëbbil jafe-jafe boobu buntu ba mën a tabbi ci doomu aadama bi nit ki lépp lu ko arrivé mu xam lu naqari la bokk na ci Cheikhul Khadim nee na lépp lu dal doomu aadama mm. ci xeetu musiba mm. nit ñaara koy dal mm. musiba wala natt bu dee natt yàlla moo koy teg nit ngir yëgee ko ci ay marxala wala ay ay ay darajaat bu fekkee ay musiba ak fitna ak ay bala ak i balaa cat moo ibbil képp kum dal cat mooy li li bëgg ngir mu jël si ko ki nga xam ne cat jàpp na ko wala liggéey wala lépp loo xam ne xeetu musiba la wala fitna ci kawam mm-hmm. wala jafe-jafe mm-hmm. bu ñëwee ba jëflante ñun wala boog bu fekkee dañu ci moom dafa jëla jëflante wut ak ñun waaye képp koo xam ne suñu borom teg na la yu ni mel mhm. bépp jafe-jafe booy dund sa jooy yëg sa dund wala say mbir mhm. boo jëflante ñoo la kulli xal nañ ko tàqal ak yow bi idnillahi taala jërëjëf mu mel ne leer na ci cat ni euh, ndax euh, da ngay ñaan wala koo xam ne tëjuwul waaye dafa bëgg alal bëgg ubbiku bu yaatu nit ñi ñaari nit lañ mhm. mooy ki nga xam ne al foq maanaam ci way ñàkk yi lañ koy boole yorut mm-hmm. ak ki nga xam ne yor na waaye dafa bëgg am amam bari mm-hmm. ki nga xam ne yorut mm-hmm. am na ñoo xam ne yoo ñàkk mutlaqan yoruñu dara am ñoo xam ne ñàkkuñu waaye seen xarakaat muy seen activité bari nañ waaye lu ñu yuutu mu échec ñu lijjanti benn mbir ba mu jafe ba mu sotti loolu day nekk lu jafe-jafe la lépp loo xam ne yaakaar nañ ko en général day daal tas lépp lu ñuy lijjanti ba noonu nekk lu yomb day mujj nekk lu jafe loolu ba mu yéem leen loolu ay mbir yu bari ñoo koy def yenn saa li alimu nuju ak biddiwam dana ci dana dana ci laale yenn saa yi raw xaane yaan dana ci laale yenn saa itam mu nekk liggéey mais li nga xam ne moo yor volant bi li koy diriger lu lépp rek baas fondamentale bi mi ngi bàyyi ko ci cat mais yu mel noonu booy dindi nit jafe-jafe mm-hmm. du dañ ci lu dana nga xam ismu da ngaa xam li ñuy wax ilmul nujum ak ilmul xuruf ak lan mooy raxaaniya boo ko amul doo a fajal kenn saafara doo mën a kenn soxlaam donte da nga koy bindal ay gàllaaj ay saafara yu nekk yu baax a baax a baax muy sangu 124 dimanche doo gis résultat mukk ci àdduna loolu da ngaa dajale xam-xam yi boo dee nag ki nga xam ne kon yo yooyu képp ku ñëw ci ñun lu la ci mën a dal nañ ko tàqal ak yow ñàkk képp ko xam ne dal na la bu ñëwee dañ ko tàqal ak yow incha allahu taala bu fekkee ne li xam ne mën nañu wax taal nit alalam bari mu am alal di bëree bëri des nañ ko liggéey ci bu buyud mm-hmm. danañ ko liggéey ci samsun bilaat mm-hmm. danañ ko liggéey ci samaanati uruf mm-hmm. danañ ci doxee sañ-sañ ci ismullahi aadam danañ ci doxee itam bi barakatul quraanul karim waaw léeg-léeg nag nga gis koo xamante ni moom tëjul waaye lu mu liggéeyee su dajalee ba jàpp ne am na benn sum rek day jeg say loolu ci wàllu rawaxaane ci lay dox moom laa wees ci ginnaaw li ma wax ni mooy ki bëgg a tàkk bu jëflante ñun mm-hmm. ci yoon yi benn ci la ñuy jaar quran ismullahi adam samsul wala yeneen ak yeneen sam binar wala samaaniyatu huruf wala alfu buyut mm-hmm. buñ ko defalee man sëñ fàllu maa wax ne su toogee ñetti weer om amam nekkul yéem ko ba yéem képp ko xam ci di borom xel ma dagg sama kurus naan sàngara ca la ma joxoon ca xaalis ma delloo ko Eh, ndax da ngay ñaan si wàllu tukki ndax bëgg nañoo tukki tukki dem wala boo ko a dellusi dafa nekk ñaar. weeña feeñal naa ci résultat bu nekk ci àddina. Hmm. amul kenn ci àddina ku bëgg a tukki. Hmm. jaar fa mu war a jaar lijjanti ay këyitam ba ba pare. Hmm. ba ñëw ci man ba jox ma visa passeport am ba ma téye ko ñetti fan def ca la ma cay def. Mm-hmm. jox ko ñu mu dem ambassade ñu di ko rejeté kooku amul ci nekk c'est impossible. Mm-hmm. kenn koo xam ne ci àddina di nga ma jox sa passeport ma def ca la ma la cay la ma def. Mm-hmm. jox la ko ñetti fan jox la nga dem ambassade ñu di la rejeté. ambassade duñ aussi mukk ci àddina ba la rejeté. képp ku bëgg tukki tukki nga jafe dafa ñëwal ci man waaye bu ñëwee ci man incha allahu taala fa mu bëgg a dem suñu borom dem ko. jërëjëf kon ñu leen beneen question. bu dee itam ki nga xam ne dafa nekk bitim réew bëgg a ñëw. nga xam ne am na ay kayit ba dem war a bëgg amaat ay kayit ngir ñibbisi. Mhm. kooku feeñal naa ci ay résultat ay yoon yoon yoon yoo xam ne kenn mënu la ko nettali ngir bari gum bari. Mhm. ba mën naa daa seedal ne bu fekkoon émission bi am na téléphone buy woote. Mhm. yaakaar naa kar kar ak i shaahid ak i seede. danañu sonal tey. ca la nga xam ne moom laa koy defal. la ma koy defal moom ka nekk ci bitim réew war ñëw. nekkul lu ñuy sangoo wala lu ñuy naan. ci ismullahi adam ci laa koy su ma ko defee toog mukk ci àddina ñeent fukki guddi lu dul nañ ko woo jox ay kayitam comme li nga wax leer na léegi ki nga xam ne coow daf koo topp nag dana nit coow dina ko toppee ci ñaari mbir mhm. am na ñoo xam ne coow da leen a topp mutlaqan mhm. dañoo judd rek yéeg ne ñoom coow nit ay nit coow lañ coow da leen a topp mhm. buñ defee coow topp leen buñ deful coow topp leen ak nit ki nga xam ne coow dafa def njombe ci erreur ci lum tey wala dañ ko tuumaal teg ko coow bépp coow bu topp doomu aadama moo xam coowu police coowu tribunal coow gendarmerie wala coowul état wala coow bu mën a doon ci àddina bu ñëwee ci man Sëñ Fallu ma fay coow li comme ni nga xam na noonu la sa war a di fayee ndox incha allahu taala amul kenn ci àddina ku coow di topp ñu gisantee a jox la dama lay jox ca fuyu mag cooy la ci 24 sur 24 musul am mukk ji ilay ci ci àddina jërëjëf loolu day leer na euh, ñu lay laaj jigéen bi nekk ci nekk sa am ay jafe-jafe mu xam ay gorom njaboot amutul njaboot loolu nan nga wala borom këram waaw wala borom këram jafe-jafe jigéen dina ko am góor dina ko am ci biir néegub sëy yenn saay mu jiitu sëy bi yenn saay mu nekk ci biir bi néegub sëy bi nit dina bëgg dugg cib sëy bàyye bañ wala yaaya wala ñenn am ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jege ñaale yi dana dal góor dana dal jigéen yenn saa ngi si jigéen bu bëgg dugg ci sëy góor yi góor yi nekk du ci dugg du ci dal ndax kii nangam la wala ay xeer de boddante ngir ay géer ala kulli xaalin képp ku ci jëflante ak ñu bu soob yàlla bu ñëwee lépp lu si coow danañ ko fay ci képp ku ci àndutoon ci lu baax loolu war a am danañ la noot ba nga àgg ci ci loolu nga sañ ko bañ incha allahu taala ñaare bi itam bépp moo xam ngay góor wala jigéen mm-hmm. ñaare bi itam jigéen gu nekk sa biirum néegu sëy mm-hmm. sa borom kër jox la bopp mm-hmm. ci njëlbeen nga ba ci digg ba sa borom kër wan la ginnaaw boo ñëwee incha allahu taala bu dee lam def tëggu ko ci dëgg dañ la ko nootal mu topp la comme ni xaj di toppee borom ci ànd ak sagoom nag incha allahu taala bu dee jigéen yi itam goo xam ne góor yi itam goo xam ne ji këram jabaram da koo njort na jegam jabaram ji day mooy yàlla wala boog tënkul ci indigalam mm-hmm. incha allahu taala danañ ko nootal mu topp comme yam yellee incha allahu taala bu dee itam jigéen goo xam ne boroom këram daf koo tong ci lu mu teg ko ci ci dëgg mm-hmm. bu ñëwee lépp lu ci saafara danañ ko saafaral ba xolam sedd wala nañ ci ay cas merroiram bi tekraaram muy benn sual question boo si posé ci mm-hmm. nekkul ne liñ ci feeñal ci résultat bari na bari goo xam ne ñun mënuñu ko lim mënuñu koo lim mais ala kulli xaalin góor a jigéen kenn ci ñoom ñaar du am jafe-jafe biir néegub séyam moo xam muy dugg wala muy dugg moo xam avant muy dugg wala mu dugg ba ci biir gisante ki ñun suñu fàll mi ci nekkoon loolu saafara nañ ko incha allahu taala waaw kay nga xamante ni dafa tëli yàlla dafa def ñaar la wala boog ñaari am na ñaari ñaari déggin am na nga xam ne dafa am dafa faible mm-hmm. tëliwut complètement dafa faible kattan la amut kooku bu ñëwee dañ koy defal loo xam ne incha allahu taala euh, dina jotaat kattanam ba mel ne ba muy soog di nekk ndaw ba muy soog ba âge de la à verger avant muy verser <laughs> à l'âge de 18 ans dañ ko delloo kattan gu ne mel incha allahu taala bu fekkee itam koo xam ne dafa tële définitivement rab dina ko def xala dana ko def ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak feebar itam dana ko def mais bu fekkee nekkul lu mujj duwaale yomb dëgg-dëgg bu fekkee daf la dal boo ñëwee danga defal loo xam ne dañ ko tàqale ak yow ba nga yëgaat sa bopp comme na nga ko yëgoon na nga ko doon yëgee ko gën a pire incha allahu taala mu bëgg a xam suñu fàllu lan la yor ay jinne la yor wala ay lu mu yor euh, lépp lu mat a jàng ci ilmul asrar mhm. yàlla def na ma jàng ko ba teg ko man see faje xaajo nu man see faje xaaja nu nekk dinaa jëfandikoo ismullahil azam ngir faj xaajo yi dinaa jëfandikoo mbootum alquran muy secret alquran ngir faj xaajo yi ndax waaye li ma lay wax mooy bépp problème ci àddina mm-hmm. wala boog bépp jafe-jafe ci àddina mm-hmm. bu ñuy régler sur le plan technique mm-hmm. wala médecine wala domaine bu mu mën a doon ci àddina suñ borom taw fee xel nañu ñu mën koo régler sur le plan mystique yàlla nee na ci alquran law anzalna haadha alquran ala jabal la raytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyati llah waxul kayit yi de mbootum alquran lañ wax secret ba mm-hmm. buñ ko wàcc woon ci aw doj bu waxuñu ay kayit mbootum mm-hmm. alquran lañ ngi ko wàcc woon ci doj doj wa dana seey mm-hmm. suñ borom dénk na al mbootum alquran xaajo woo mën da sa saafara addu amut jërëjëf euh, kon yow da ngay fay da waaw moo gën a gaaw ci itam moom la ëpp lu may jëfandikoo mm-hmm. ndax lu ëpp ci doomu adama yi mm-hmm. lañoo ñoo taq mm-hmm. lépp loolee ñaanal samedi mu jàpp mën nañoo xëy dimanche loola tojaat ngir seenu sàggan moo tax sunguf mënu see ñàkk maa ngi jëfandikoo ismullahi azam ak sirrul alquranul karim waaye mbirum sunguf nag dañ koy faral di laal ndax mooy li nga xam ne euh, moom lañu jox nit ñi ngir seenu sàggal waaw kay kon ñu tëj tàggoo ak ku la soxla ak sa adresse ku la soxla fan la lay fekk. waaw ñu ngi tuubaa hmm. danañ faral di tukki nag. Hmm. ci biir réew mi. Hmm. ci régions yi ak bitim réew. waaye suñu base fondement fondement mi ngi Touba. Touba daal fi lañ juddoo fi lañ ci jamono ju nekk ñu ngi fi. ku la bëgg a jot numéro téléphone waaw ki ma bëgg a jot mooy 634. 83 83 10. ak 277 60 32. d'accord kon waaw kay ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel te di leen jaajëfal ci ñëw bi nga xam ne ñëw ngeen ko lii sax nekkul sama tabiya ya sama sama aada wante mëntu woon a ñàkk ndax jafe réew mi neexut tappale yi bari ca domaine bu nekk am na triche am na ay tappalekat muy faux médecine mm-hmm. faux policier faux lépp Mm-hmm. waaye fóomaar ba ci gën a di ca mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy sol mbubbum sëriñ mm-hmm. jël daraadu yëkk ko ci seen jël kaala wékk ko seen ndodd du woyoo sëriñ turu sëriñ ca pëndub sëriñ gisuñu ko dañoo bari ci réew kon nag yéen journaliste yi maa ngi leen dénk benn mbir seeni micro yi képp ko leen koy tàllal wala seen caméra yi képp ko leen koy dëpp da ko gëstu ba xam ay mbiram sol di wax ak moom salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu